comme nga xamante ni taxawaay boobu la ñuy amee souvent waaw boolewuñ ko dara duma dem di def ay calcul waaw Ousmane ni yoon waa nga la fi bàyyi parce que newuñ ci calcul boobu waaw da nga gëm ni intérêt la joxoñ nañu dañu war a dem man xam nga xam nga xam nga ci lu may ramane hmm. man mouvement laa yor un mouvement politique comme Pastef ah oui Pastef dama nga laaj leen lan mooy seen objectif mooy ah, c'est conquérir le pouvoir oui léegi pourquoi je euh, moi mon mouvement dérogerait à cette règle là wala dafa am ñu ci yee ak ñu ci yeyul loolu loolu mais Pastef ak ak grâce ñu dayoo. mais du du dayoo bay su le je parle sur le point sur le du point de vue statutaire parti politique yi ngay gis nii statut association association la yor purement privé. yow mosoo dem élection. man mosaguma dem élection natt ñu la fenn. waaw mosaguma dem ah, élection kii dem élection ñu natt ko dem législative. kan moo dem kan moo dem élection ñu natt ah, ko non parce dem présidentiel ah da ngay wax ay statutaire noonu waaw pour pour pour pour jóge fa dem conquérir le pouvoir laa lay wax waaw moom laay wax natt na boppam ba réew mi ñu ci ëpp ci ñoom ne ko kat wala boog ñenn ci ñoom ma jëlee ci baromètre élection présidentielle yu ñu génn waaw quinze pour cent téeméer boo jël fukki ak juróom yi nee nañ ko ànd nañ ci sa projet waaw <laughs> yow yegg gu ci dayoo boobu waaw je suis parfaitement d'accord ah waaw moo tax man ma ànd ak moom et non pas moom mu ànd ak man xam nga affaire yi c'est clair xam nga problème bi mooy man j'ai pas de problème Euh, à reconnaître vraiment li yàlla defal doomu aadama parce que man am na lu ma yàlla defal. loo xam ne de nangu ko. waaw mais au niveau local choix bi au niveau local àndoo ci. loolu. xam nga la ma war xam waral loolu. Hmm. gis nga au niveau de Grand Dakar. Hmm. au niveau de Grand Dakar man. 15 hmm. euh, pour cent yooyu noonu ngay wax ci élection présidentielle man mii contribuer naa ci au niveau de Grand Dakar. ndax dégg nga ma. oui gis nga passif au euh, présidentiel amuñu siège man maa créé siège du ay. dajale leen ay fukki dërëm ak juróomi dërëm de. Hmm. sur fond propre laa ko defee. ran nga. Hmm. man ba may jógee États-Unis damaa jënd sama sono moo ngi fii ñëw di battre campagne. j'ai fait confectionner des t-shirts des pancartes Grand Dakar xam nañ. Hmm. comprendre nga waaw léegi nag le problème qui se pose mooy. comprendre nga aujourd'hui loolu boo ko defee Sénégal laa ko def mais à travers Ousmane Sonko laa ko defee. kon man aujourd'hui la courtoisie politique voudrait que. comprendre nga. ne hmm. ma ok léegi yow tu intéressé par le le le le la mairie de Grand Dakar. Hmm. léegi comité d' investiture bi léegi on te convie dans dans le cadre de Yewwi Askan Wi ma déposé sama sama demande sama sama demande de candidature. te yow xamoon nga jour bi ñu koy déposé. lu la tere woon déposé. non non man na ma koy xamee ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk au cœur du du de Yewwi Askan Wi parce que il faut nga comprendre benn affaire Yewwi Askan Wi. ce sont des leaders qui se sont retrouvés au sommet. Hmm. ran nga. Hmm. waxtaan la ñuy waxtaan wàccee ko à travers ñoom seen parti seen ay parti politique comprendre nga. Hmm. maanaam kon bu wax ni choix bi tamit loolu ko guidé. maanaam moom laa yeewi la waaw yeewi moom moo ko guidé au au ñoom gis nga ci ci ci ci règlement intérieur ci charte yeewi. n'est-ce pas. les propositions les propositions ak yooyu yëpp comprendre nga. c'est-à-dire encore une fois ce que ce que je dis. te aussi c'est l'occasion pour moi. vraiment de saluer le courage du président Bougane Gueye Dany. ah oui. non non je suis à 200 pour cent avec lui à 200 pour cent avec lui le président Bougane Gueye Dany. Hmm. c' est quelqu'un koo xam ne ku ko bëgg a ku ko bëgg a multiplier par zéro dans ce pays là ah. Hmm. yow yaay sa yow yaay sax parce que li mu fi def c' est quelque chose boo xam ne du point de vue économique ses positions politique assumées yu mu am ci réew mi dañ ko war a jox cëram dans le cadre de toute coalition bu ñu mën a teg ci ici. kon da nga koy jox dëgg ci tout ce qui s'est passé mais je te dis sëñ Moustapha Sy. oui kilifa daa am ci réew bi amul kilifa gu mag la joo xam ni sa légitimité elle est recue elle est connue et hmm. la fi wax coalition bi proposé nañ ma ko nangu naa ko waaye bëgguma ko ma fooye. dégg loolu. bëgguma ko ko fooye. waaw dégg loolu ah, waaw waaw waaw waaw. <laughs> loo bëgg wax foofu. mooy xam nga mooy politiciens les politiciens professionnels li ñuy def comprendre nga dañuy ñëw. duggal la ci benn affaire séddoo lépp naan ay non kii moo war a jiite kii warul jiite yow mënoo ainsi de suite ainsi de suite loolu la ko gis yeewi mais Sonko fa nekk comme leader Khalifa Sall xoolal lay wax daal xam nga ñun duñu ñun duñu ay xale te lu ñu xam comprendre nga kon yow déception nga am ci Sonko non pas Sonko en proprement Sonko man li may reproché Pastef Sonko reproché na leen ko barke de moo parce que encore une fois je te dis et je le répète gis nga les connaissances politiques Ousmane elles ne s'arrachent pas elles s'acquièrent maanaam waaw ah, loolu moom c'est un message que je veux vraiment envoyer aux néos engagés de PASTEF wax la ne leen néo nga wax de bien sûr les néos engagés de PASTEF ñoom loolu di wax en tout cas daal la connaissance les les les les connaissances politiques elles ne s'arrachent pas mais elles s'acquièrent ma la dégg mooy nii ci diggante bi ay coups bas laay gis ngay ngay mel ne looy feeñal ay déception ay ñoo xamante ne dañ la dañ la def ay dëgg sërëx loolu la ñuy sentir ci yow c'est-à-dire euh, c'est comme si Pastef bi ñuy jaay wala boo ñi doon ànd ak Ousmane Sonko nga ànd ak ñoom ci ba euh, euh, ci seen base. waaw peut-être di Ousmane Sonko nekk nekkuñu ko. waaw nga bëgg mais amul problème xam nga am lu ci ëpp solo. c'est-à-dire gis nga daa am loo xam ne kenn mënu koo nasaxal ci ay ay deux jours. comprendre nga. moi je suis un engagé communautaire par essence Grand Dakar Grand Dakar bi ba juddoo yaroo fa màggee fa dëkk fa ñoom l'essentiel de Grand Dakar xam nañ man maay kan ak lu may représenté comprendre nga Ousmane Sonko nag du ma ko blâmer ci lenn parce que moom moom xam nga fu mu xam. Hmm. mooy fi mu déposé carte d'identité Ziguinchor Grand Dakar la fa nekk man maa ko gën a li nekk Grand Dakar man maa gën a xam. ba yaa gën a xam it la mu tànn ànd ci. non non xam nga les choix nu muy demee ku xam xam na ni aujourd'hui moom mun na cee bañ a am benn regard bu direct par rapport parce que Dakar dafa am ñu ko dafa am dafa am koo xam ne moom lañ ko dénk naa Pastef. Hmm. comprendre nga Ousmane Sonko il peut pas être au four et au moulin nga mais li ma la mën a xamal mooy encore une fois. kat su ma déggee yow même mise u Khalifa ngay wax derrière. non non Khalifa Sall bon il est xoolal gis nga Khalifa Sall APR ak ñëpp ci yam ñëpp seen objectif c'est de conquérir le pouvoir de l'exercer entièrement ou partiellement. waaye li ñuy dégg nga wax mooy foqale ci poste yi. mais du non sama nit rek laay teg lool ngay bëgg a wax. mais loolu loolu bettu ma xam nga nag bu ñuul boo ci amee soow bu weex war a sant yàlla ndax dëgg ma. <laughs> Eh. waaw c'est-à-dire une logique politicienne ne sera jamais une logique citoyenne. léegi bu ñu la déggee lan ngay def vote sanction. non parce que man fu mu toll nii ba ma ñëwee ba léegi euh, voilà man démb rek maa ngi recevoir euh, monsieur Badara Gadiaga hmm. euh, mi nga xam ne waaw bu Soham Wardini hmm. d'ailleurs Soham ci boppam war naa déplacé wu ñëw sama kër seetsi ma hmm. nest pas ba mën a ñëwee également le directeur Euh, du plan national de lutte contre le paludisme mon grand frère docteur Doudou Sène mm. nekk tête de liste proportionnelle euh, ci liste Benno Bokk Yaakaar ak Grand Dakar ñëw na ci man seet si ma mm. yaa yaa ngi ñëw di ma seet si ñu ngi waxtaan d'accord waaye yeewi moom seet si wuñ la non yeewi mu dañ maa ñemee seet si ndax la <laughs> nañ ñëw mais nag man xoolal man awma problème quoi je n'ai aucun problème comprendre nga parce que xamul waral loolu sant naa yàlla ah mais da ngeen a sañ ñu laa seet si ça veut dire que nga leen buntu bi. tëju ma ko de. ah yow mi mën a taxaw wax soo am war di ñuy wax docteur. non non parce que ñoom ñoo ma seet si. ñee amul por xo dama ne je reçois tout le gis nga man lu ñaaw ak lu bon bu ma koy def it du ma ko defee Grand Dakar xam nga lu hmm. man damaa jàpp Grand Dakar ñëpp samay njaboot lañ. d'accord li may wax nag du waxu tey waxu ëllëg la man loolu laa jàpp. damaa jàpp ni Grand Dakar ñëpp samay njaboot lañ moo tax lu ñaaw doo ko dégg doo dégg mu wax ko wala ma def ko. d'accord euh, dernière question perspective yi kon sa digganteeg waa Pastef lan la après les locales. ah waaw bon Ousmane Sonko moom encore une fois li ma la wax ni euh, euh, euh, du point de vue euh, vision. du point de vue incarnation de la volonté populaire du Sénégal man dama jàpp jàpp ni ba may ànd ak moom en 2019 fi mu nekkoon yàlla dafa dogal dafa gën a yokk. yaakaaru sénégalais yi y compris sama bas dafa gën a yokk ci moom comprendre nga. Mm. mais yaa ngi xaar mu leer digganteem ak Adji Sarr. no mais bien sûr comme tout sénégalais yëpp duñ koy xaaree. mu parce que aujourd'hui mënuñoo nekk ci benn dossier boo xam ne n'est-ce pas y a des eu vraiment des des des jeunes.